Salam salam sama s'il vous plaît maxi de partage dem surveiller je répète dem surveiller armée parce que farbangom Ngom instable. Tadoul nalaoul, nalawul nalaoul. nalawul mi ngi djema de liguey Euh, euh, bopp néew yi mi ngi sulli néew yi di fa jël liggéey di ko fa def sama gars yi s'il vous plaît leen ngeen garder armeel yi ndaxte suñuy ñii seen yaay yi ñu ngi fa ñii seen papa yi ñu ngi fa ñi seen maam yi ñu ngi fa ñi seen bàjjan ñun suñuy maam suñuy tontoo ñëpp a ngi si biir armeel bi s'il vous armeel bu Yoff bi bu Thiès bu Mbuur bu Malika bu Géejawaay bu bu bu bu gin gineew bu caajaay fépp sama gars yi s'il vous max de partage dem len euh, ci armée yi surveiller ko parce que Amna gardien yo xamantene ne gardien armée yo xamantene bo len leen 100000 francs ñu bàyyi la nga dugg mais Amna ci si xamantene ne dañoo gëm yalla ndax fe ca Casamance amna na armée boo xamante ne ñu fa bëggoon dugg mais gardien bi dafa bañ ba wo quelques jeunes motax ñu daw instant bi na dañ leen bëggoon fay xaaliss pour dugg ci armée bi sama gars yi def leen ni wa Casamance bu leen bàyyi kenn dugg ci armée parce que suñuy néew yi ñoo ngi ci kër dëgg ñun ñu ngi ci këru fen sama gars yi bu leen bàyyi kenn mu dugg ci armée li Farba Ngom na la woo de yaa ngi def lu ne ndax Macky Sall bu dee de def troisième mandat sénégalais yëpp mën a teg sa gémmi mais xoolal samay bët man tamit nalaw ma maa lay topp yow rek lay topp loo def ma génne ko sénégalais yi coupé leen internet coupé leen VPN man maa ngi internet maa ngi VPN fii mënoo leen fee coupé ñaari salaamaaleykum loo def ma wax ko sénégalais sama gars yi def très attention ci koñ yi koo leen xam ne ko ci ci sol gilet sol verre sol kab bu ñuul nervi la rey leen ndayam ba pare dagg xuur sama Californie bi xaalisu Sénégal la Macky Sall jox kër Macky Sall jox ay milliards pour mu tabax kër gi euh, di changer yére di def lu ko neex di direct di ñaawal nit ñi jarul ngeen egg ci kër gi jël leen pistolet bu def ci essence ba mu fees tiimal la ko mbay këru Californie bi ba pare sànni fa pétale kër gi yépp ay tàkk fii moom lu dul xaalisu riba lépp Sénégal la ñuy dëbb tabaxaat ko kii di këru euh, Maître El Diouf ndax kooku lu dal Sénégal 14 morts yépp metti El Hadji moo ñu ko yóbbee duulam yu rëy yi mu def di jàppale Adji Sarr te mu xam ne dossier bi ay duul kese la Maître El moo ñu yónnee moo ñu yóbbee li ñu nekkee yëpp moom tamit këram gi def leen ko la même chose sànni leen fa essence ci pistolet yi jaru sax ngeen di egg di sona seen bopp ndax temps amul sànni leen fa euh, essence taal fa pétale mooy pétale yooyu nga xam ñiy taal 31 décembre feu d'artifice yooyu ngeen di jël rek téemale ko ci kër gi kër gi yépp ay tàkk da ngeen di jaay dof waaye di ngeen xamante ne nalawoo leen de mais ñun tamit nalawuñu yéen rek la ñuy topp